جبابة ساكنة Good. rek moo xam ni dafa dox sama diggante yow te xamoo ko ndax sa sama digganteeg sa waajur bu jigéen la dafa yàgg ñëw jëdda ma yàgg téye ci loxoom yóbbu ko mu tawaaf kaaba gi yóbbu ko mu daw Safa Marwa ba kenn ku mu gis ci yéen dañ leen fàttali lool

ñun ñaan ñëpp ñi ngi ci géewu politique bi waaye damay faral di wax naan politiciens du Sénégal amuñu maturité politique ndax dañuy def ay erreurs yu mag a mag a mag lii jaar si Sénégal depuis un an un an et demi yëpp mënoon na ñàkk su fekkoon di ay nit la yu am maturité politique mënoon na ñàkk waaye durant la campagne électorale nga def pas geste bu nga xam ne day woné sa maturité politique day woné sa mission day wone surtout sa vision dañ ñëw fi di clôturer la campagne de Bessignac et de PUR muy campagne bu nga xam ni mag ñi yàgg nañ ko ñaan waaye fexe nañu ba jaxase carte yi mais ñépp xam na ni képp ku dëkk ci quartier fii ci Sénégal ak commune boo mënti dëkk fii à commune boo mënti dëkk laa wax nga xam li xew ci quartier yi xam nga ni àndu mu Moustarchidine ak waa kër sëñ Moustapha àndu pur ak àndu bés du ñàkk kenn mënu leen dékku su fekkee dañuy wax ak yàlla rek su fekkee jaaree la nañu mbir yu yoon ñun ñëpp ay sénégalais la ñu xam nañu li xew si quartier élection yi nag suñ ko labajee nag kooku beneen mbir la kenn mënu si dara xanaa du mu génn si mbedd mi di xeex ak ñoom waaye ñëpp xam nañu la réalité waaye itam bés du ñàkk. bés du ñàkk bés du dina ñëw bu nga xam bi kenn dootu la bayati élection yi vision bi nga am malgré la position des khalifistes ils ont soutenu Idrissa Seck yow nga am vision def délégation bu nga xam ne bi na à la au meeting de clôture est sa analyse wane sa gis-gisu tey ak ce gis-gisu ëllëg kooku il faut être armé d'une grande maturité politique pour gis lu mel nous Yakar bi nga am nak ba def lol ñun wa Bés ñun wa kër Cheikh Seydou Mouhamad Moustapha yaakaar boobu yàlla bu ko yalla tass amna benen engagement bu nu amener à tes côtés pour que la plus grande commune du Sénégal commune bi nga xamné la industrie yëpp la man développement xamna li xew sa position stratégique la plus grande commune du Sénégal avec tout ce que ça traîne d'industrie de recettes budgétaires que cette commune soit gérée d'une manière collective par ñi nga ñi un socle un ancrage populaire ñi ngi lay ñaanal inshallah taala yaakaar bi nga am yaakaar boobu yàlla bu mu tas Babacar te incha allahu taala du tas jox la rek nga sànni si ay euh, mbokk yi asalaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal jàmm di kontaan bu baax a baax ci sa teewaay fii ci ci penc mi di nuyu bu baax a baax euh, imam ratib ñëwoon na fi ba dem di nuyu imam yi fi nekk di nuyu bu baax a baax kilifa yi fi teew délégué de quartier notable yi di nuyu suñu yaay bu ma nuyoo Adja Fat rek nuyu naa mun naa ne bépp yaay boo xamante ne yaa ngi fi teewe di nuyu waa daayira bi euh, sëñ bi kàddu gi ma bëggoon yëkkati rek xam naa ne du bari mais

gis nañ man mun naa seede na ñu ngi ci ndaxte du ñu jug ci programme yu mel nii ñu am taxawaay boo xamante ne li ñuy wax ci wàllu diine euh, du ma wax sax ci temporel mais dinaa wax tuuti ci rôle bi nga xam ne en tout cas mun naa ne diine baa ngi koy def ci biiru commune Hann muy daayira yi muy ñoom jigéen ñi muy jotaay bi nga xam ne moom nañ fiy def sànq balaa ngay jël kàddu am na benn misaal boo ñu fi woon dañuy ñaan yàlla yàlla na yàlla nangu ñaan boobu li nga xam ne mooy sa taxawaay toujours li may wax rek mooy kóllëre gi nga xam ne suñu wejur suñu sëriñ sëñ Moustapha si Djamil euh, amoon na ko mun naa ne tey euh, toppoo tànk yi danga nga ñëw gën ko renforcer ba pare nag miinal sa bopp yaraax parce que loolu dafa neex nga am sa sëriñ mais sa sëriñ miin say dëkkandoo miin ña nga nekkal mais bi ci gën a neexati mooy yow ca la nga nekk moom mu xam ko ndaxte wax nga ko agent de développement nga acteur de développement nga maa ngi jéggul c'est péjoratif <laughs> maa ngi donc effectivement acteur de développement nga donc li ngay wax xam nga ko li ci des nag lenn la ñun dañ fi nekk mun pour la communauté képp koo xamante ne yaa lo xamantane loo xamante ne rôle la ci biir société bi bi ci jitu ñun ay jullit nañu muy suñu diiné dañ ci ànd ak yéen mais li tax ñu neexal na andal señ bi moy ci lañu ñu boole dañ ko comprendre donc foofu wax ji du bare moo tax ma ne dafay am témoignage yoo xamante ne sañ naa ko wax fii ci Hann Bel-Air liggéey yi nga xam ne ñi ngi koy def ñuy contribuer nag bu baax a baax a baax a baax ci développement te gis nga mobilisation bi nga xam ne am na fi malgré programme yi malgré xat-xat yi yëpp loolu rek dafay firndeel cofeel bi nga xam ne en tout cas ñoom am nañ ko ci ah man day Babacar mënuma programme bu mel ni am ax lu ma munti mën a jàpp ax lu ma xat-xat-xat du ma ñëw teew fii ci tuuru population yi sant la gërëm la di la ñaanal yàlla di firndeel aussi ci sa njaboot am na ñoo xamante ne ñi ngi ci biir conseil municipal ku mel ni Ahmada ca la bokk ku mel ni euh, Adja Fanta Fall am nañ taxawaay boo xamante ne fépp foo leen woo ci décision bu ñu war parce que c'est important que nit ñi xam lan mooy conseil municipal lan mooy cëru délibération en vote dañ ciy

صورة النبي صلى الله عليه وسلم صورة النبي صلى الله عليه وسلم صورة النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي صلى صورة النبي صلى الله عليه وسلم موقف صورة النبي صلى الله عليه وسلم بس يبقى صورة سويو نوزور جي بي سگ بان

Santa Claus.

nga wàccal maq si pënd bi janal werd wi ngir jàmm yàlla yi jëriñu ñi si sa werd yi Cheikh ñëw indi dialogam dialogue ak moom waxuma nag dialogue bi nga dégg fii Sénégal déedéet dialogue diggante yonent bi ak Cheikh mu ni kay in kuntu su fekkee ndey nekk sama ma ma mën jafandu si yow mu ni ka daan fa na am wa illa ay fadlin kaana fii za fa qaala mu ni ka fa na am su fekkee ni loolu la mooy sama condition nga nekk sama buntu sawetaar ku ñëw rek ñëw si man rek àjjana la jëm mu ni ko sunu loolu ban intérêt la am def li nga may def loolu yonent bi ni ko ni ko bëgg noonu lay amee waaw ah. kon gaaw fii sa fa qaala lakum kazalika faajali qaala lakum kazalika faajali qaala li nga ko bëggee yow cheikh noonu laa koy defee faajali kon nag gaaw gaaw gaaw gaaw waaye nag lan la si sama maam si Haaji Malick talabal mataliba talabal mataliba استحقق حبه فضمانه بجميع ذلك ينجلي الله اكبر سمع